سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الحمد لله رب العالمين القائل في موكم كتاب المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد العرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سمي البصير وقال أيضا جل جلاله ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى وصلاة وسلام على سر الوجود ومدده ونور الأكوان سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة المشاهدين والمشاهدات نحييكم ونعنئكم في هذه الليلة العظيمة الطيبة المباركة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziare te jiital ci nuyu boobu ziare bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke di ko ñaanal suñu borom bi tabaraka wa taala yàggal ko fi lool waaye di nuyu Abul Baraka di ko ñaanal suñu borom bi tabaraka wa taala mii xalifa Cheikh Cheikh Mamadou Fadal ñu nekk fii ci Milano di fi màggal bésëb le kasu rajab gi mu nekk bés bu mag di bés bo xamne bés bu am solo ci l'islam bokk talib yeb daje fi li fi daje ci nit ken xamul nu tollu ci mbooleem ci Italie gox bu nek rek nit ñi joggé nañ fi daje fi waaye seigne Cheikh Oumy itam ñëw jëmbal jëmbal gëna taral jotaay bi ànd ak njabootu sëñ Tuubaa gi fi nek yeb kon xamna rek muy bés bi di bés la bo xamne bés bu mag ci l'islam la moy nga xamne bés bi nga xamne moy al isra wal mi'raj al isra wal mi'raj nak ku ko wax nak ba lo jitu nga kay tuddu il faut nga delu tuddu ci gannaaw. xamne ne bokk na ci sabab yi ko waral moy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi di wote tawhid wetal yalla ci jamono yoyu julit yi lu nekk daj nañ ko fofu ci mak mu metti ñom lool ba nga xamne borom bi tabaraka wa taala gis nga sax ci alquran bari ni limi wax bi muñal fasbir kama sabara ulul azmi Nakom ko muñal comme ni nga xamne ulul azmi ñi nañ doon muñé xam nga ulul azmi yonent bi sax alayhi wasallam wasalaam bokk ci moo tax mu sara lakum min diini maa wasa bi nooxon wala si aw xayna ilayka wa maa bi ibrahima wa moosa wa isa an aqimu diin kon ñooñ ñooñoy ñooñoy ulul asmi waaye dégg ko mu ne ko fasbir la hukmi rabbika fa innaka bi ahyunina muñal sa atte borom ndax yaa ngi nekk ci càmm sa borom yaa ngi ci nu càmm waaye nag gannaaw loolu nag yonente bi alayhi salaatu dem taif bi mu demee taayif nag la waa taayif nag boole kook ndeysaan ay ay tut tànk xale yi di ko sànni xeer ba nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne euh, maanaam deretam ji nga xam ne moo doon génn ci tànkam bu tedd boobu dafa mujj di kole maanaam tànk bi da doon kole ci ci ci dàll bi da doon kole wi kon loolu mel ni lu mel lu métti woon la ba nga xam ne sax ci diggante Taayif malayka mi nga xam ne moo yor moom la yàlla dénk montagne yi ñëw na ne ko damaa bëgg rek nga jox ma ndigal ma jël ñaari montagne yi tiim Taayif daane ko ci kaw waa taayif ñi dee benn yoon yonent bi alayhi salaatu salaam naka na na ko deet daal ne ba loxo boroomam na ko na ko ixfir lahum fa innahum laa ya'lamuun na nga leen jéggal ndax dañoo xamut daal ne malaayka mi kanaa xamoon ne mën naa nekk sax ñii ëllëg am lenn ci seen njaboot ñoo nag yow daal xam naa ne tur bi la sa borom tuddee raufun rahiimun jooj dëgg dëgg dëgg mooy mooy soo moom yeeyoo nga ko xam nga laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma hanittum alaykum bil mu'minin raufun rahim jooju ndax raufun rahim ñaari turi suñ borom la waaye gis nga suñ borom da ko tuddee yonente bi alayhi salaatu salaam ngir ñeewante gi mu ci ci ci ci ci maanaam ci doomu aadama yi ak baax gi nekk ci nga xam ne yàlla da ko wax nag wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin bi mu jógee nag taayif nag ci instant boobu nag ci jamono yooyu nga xam ne jamono ju difficile la ca la suñ borom nag invité na ko nag invité ko nag mu war a ñëw nag maanaam maanaam maanaam dem ci suñ borom muy loo xam ne lu yéeme la nga xamne jibril mo ñëw àndaale alburaax alburaax nak dafa gaaw dafa mo gëna mo gëna mo gëna manam nim melax mel moo tax ñu tudd albarxu mooy firi melax waye alburaax nag mooy mo moo maanaam ni mu gi mu gaaw moo tax ñu tuddé ka lu mel nga xamne mom fu bëtam bi tege rek manam tànkam bi àgg na fa ngir gaaway waye nak mu ñëw jël si ko nag suñ borom na nee subhanallahi asra bi abdihi yàlla nee ne maa rañaanee yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga rañaan kooku ni nga koy déggee du yonent bi moo rañaan boppam waaye suñ borom ci boppam moo ko rañaan su ko defee lool ni nga koy déggee mooy liir boo xam ne yaayam da koy da koo boot yéeg maanaam étage da xam ne liir bu muntu yéeg waaye yaay ci boppam moo ko yégal kon nag loolu loolu lay firi léegi nag gannaaw bi mu bi mu rañaane nag waaye dégg nga euh, ba mu jógee mu jógee màkk dem baytal maqdis waaw bi mu dem baytal maqdis foofu nag fa la dajale yonent yi manam jitté fi da nga dégg sëñ Tuubaa naan amin mal amin fawqul amin lil asfiyaa lil asfiyaa yi nak moy yonent yi nga xamné yonent bi aleyhi salaatu salaam jiite na len fofu julli ñu ne nag ndax fofu roy ay roy ulamaa yi werante nañ ci waaye ala kulli haal moom loola am gannaaw la borom al dem xam nga yëpp romb na ci yonent fa dem na ba jamono yoo jibril mënta dem ndax jibril xamal ko ne ko su ma su ma séqee benn jéego rek maanaam lakk ni ni nga xamee ne maanaam liy karaw karaw di lakkee ci sawara moo tax mu ne wama in alxuraan wama minna na giseeg boroom foofu am na hadis bu mu indi ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisul boroom am na yeneen borom xam-xam yu wax waaye ibnu abbas ak yeneen borom xam-xam saxal nañu gis gi waaye ñun lu mën a xew rek moy ki di Seyxul khadim ali ridwan ridwaanulaay baaxil khadim mom saxal na gis gi waaye ne gis gi gisin la gisin la go xamne manam suñ borom rek mo xam num mu kurul kurul yaronte bi ali sallallahu bi alayhi salaatu wasalaam nag gisul borom fi ci adina suñ mu dali wax nag ne ne ne nag fii ci adina mom fi ci adina mom kenn du fi gis borom kenn du fi gis yàlla ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek la suñ tuba wax ne lolu suñ borom may ne ko bi mu ñibbisee xam nga nak coow na kur diggante ndax diggante mak ak baytul maqdis nga xam ne doxam ñetti weer la ci gileem moo xam ne moom ci génn guddi mu def ko ba pare ñu ne déet mu ne dem na ba Sidratul Muntaha romb foofu dem ba jàkkaarloog boromam loolu nekk loo xam ne lu yéeme la waa Màkka yi di ci coow waaye xam nga rek jox na leen misaal ci ci yoon wi am njëgg moo xam ne ñu ngi doon ñëw mu wax leen ban bis la ñuy agsi ak wane ne am na ndox muñ tegoon moom moom mu naan te loolu lépp ba ba ñooñu ñëwee loolu firndeel na ne effectivement am na seen ndox muñ tegoon ndox ma ndox ma am ku ko naan te loolu yonente bi aleyhi salaatu salaam nee ko moo moo ko daan ñaareel ba mooy aussi waxtu moom leen waxoon leen ci lay njëg mi agsi ci màkk lam njëg mi agsi loolu day na kon loolu lu am la waaye nag yonente bi aleyhi salaatu salaam foofu nag waa màkk coow li ne kur waaye xam nga Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu bañ ko bañ ñëwee wax ko nag nag sa na ne lu mu wax ñu ne moom day def ne jógee na jógee na fi màkk dem baytul maqdis ñu ne déet ñu ne ñu ne waxatuñ loolu mu ne jógee na baytul maqdis dem ba ca asamaan ni juróom-ñaar wala dem ba gisee ak boroomam Ah, mun ne leen mu ne leen ñu ne ko ndax loolu wér na mun a man de ki ma xam kooku lu mu wax wér na moo tax nag keroog lañ ko tuddee as siddiq keroog lañ ko tuddee as siddiq bés boobu nag al isra lu mi'raj yonent bi alayhi salaatu salaam dem ñu jox ko ci suñu borom jox ko ci lim mu gën a fonk mu di julli moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ci rañaan googu nga xam ne la ko suñu borom joxe julli muy jaamu yàlla gu màgg bés boobu nag mooy bés bi nga xam ne nag la Cheikh Mamadou Fadal gane jamono ndax Sëñ Fallou ca saf xorom ga danaan wax ne tey yonent bi def na def na lay rek mën a nga xamne ne fofu foofu la loolu amé manam ñu jox yonent sallallahu alayhi wasallam julli bés bobu nak muy bés bo xamne ci la Cheikh Mamadou Fadal gane gane jamono nga xamne kon Cheikh Mamadou Fadal da ngay gis nak que ak julli dañu am relation waaye loolu limi firné moy day firné rek ne Cheikh Mamadou Fadal kenn ko xamne gis na ci xër gi nga xamne ne nako ci liggéeyal Sëñ Touba ba daan laaj Sëñ Touba mu liggéeyloo loko waaye kenn ku ne xam na ne euh, gannaaw ko la ko sëñ Touba wax na ko liggéey bi am na mooy bi ma euh, jumaay Touba ji euh, tàmbali nga xam ne mën na ko liggéey baa ngi nii waaye kenn ku ne xam ne Cheikh Mamadou Fadal xeer wi njëkk ci jumaay Touba yàlla dogal na ci loxoom la jaaree waaye xeer wi mujj itam ci loxoom la jaaree nga xam ne kon loolu day wane rek ne maanaam ni mu dëppoog julli te ci reñaan gi julli lañ koy jox julli lañ ci jox yonent bi alayhi salaatu salaam moom ci boppam ci ci reñaan googu maanaam ci la gane jamono kon mu mel ni ne mu mel ni ne kon Cheikh Mamadou Fadal ak jullit dañoo am relation bu baax waaye nag gis nga euh, li yéeme ci ci gane jamonoom mooy bis bi mu gane jamono sëñ Tuubaa bu ko kenn dox toq tal ndax dafa dafa ñëwaale koor kon nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal maanaam dafa dafa dafa juddale ak wilaaya ak wilaaya mu nekk nag koo xam ne moom Cheikh Mamadou Fadal gane nag ci weeru jamono ci weer woo xam ne mooy rajab di weer woo xam ne di weer wu am solo bokk ci ñeenti weer yi gën a màgg maanaam ci weer yi nga xam ne alxuraan da leen tudd mooy ñeenti weer yi nga xam ne suñu borom dajee tere sax xeex إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أرم ذلك دين القيم daal di waxaat ci beneen na fa isan salaxa asrul orom faqtul musrikin ay si wajut moom ñeenti weer yi mu di rajab ak muharram ak ak zul xeexda ak zul xijja muy ñeenti weer yoo xam yàlla da cee araamal maanaam xeex nga xam rajab bokk na ci weer yooyu rajab nag di weer woo xam di weeru suñ borom wax nañu am na olomaamu taarix nee ci weeru rajab ci lañ ëmb yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lépp mu di ngëneelu weer wi waaye ci weer weeru rajab bëri na ay ngëneel ba ci bis yoo xam ne boo ko ooree am nga ci ay ngëneel yu bëree bëri am daje na ci weer wi moom nag sëñ Tuubaa dénk sax li muy wax ci rajab muy wax ne bëri na ay xasaayit yoo xam ne taalif na ko yoo xam ne mi ngi mi ngi ko mi ngi ko tënkee yow ma rajab bi wax nga xam ne ay xasaayit yu bëri yoo xam ne da cee wax ay ngëneel yoo xam ne am na ci rajab dégg nga sax am na fu muy waxee ne busra lana qad atalna al joodu wal karama lamastahalat alayna asru orom asru orom yooyu mooy mooy mooy ñeenti weer yooyu ñu doon wax nga xam ne rajab ci la bokk kon nag bés bi nag liñ ci mën a jàngee bëri na lool mooy dañ ciy jàngee ne maanaam importance julli nu mu amee solo ak li ñu tuddee al ibadat jaamu yàlla yooyu ndax Cheikh Mamadou Fadal su fekkee ni ci bés boobu moom bi mu gën a jamono dafa dafa dafa dafa waaye ci bis boobu tomb dañuy jox ci yonent bi alayhi salaatu salaam julli kon dafay wane rek maanaam fonk gi nga xam ne maanaam maanaam bis boobu war nañ ci cee bàyyi xel muy bis boo xam ne bisub ibaadaat la waaye Cheikh Mamadou Fadal waaye ci jamono bi ñu nekk li ñu war a mën a jàngee ci Cheikh Mamadou Fadal bëri na ndax moom yàlla da koo defal tawfiixul tawfiix maanaam yàlla defal ko li ñuy li ñuy wax maanaam maanaam maanaam euh, sarafu nasibin suñ borom may ko mu bokk ci askan wu wu sell wu baax. muy diggante bi ak Mbacke seex ko xam nga euh, euh, moom sërif la ci ci ndey ak ci baay dégg nga sax euh, sëñ Mbacke Bousso def na def na def na xalwatu ci gédé Bousso ngir seet askanu Bousso bi ndax ndax ndax seen càll la fan la yem waaye bi ñu xoolee càll gis nañ dem nañ ba ci Assane ci nga xam ne mooy doomu Seydina Aliou di sëtub yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon moom sërif la waaye ci côté bàyyam tim di Seyxul Xadim Ali Ridwaan lay wax Xadim tim foofu tim sërif la ci kon loolu moom lu ko yàlla def la mooy nga dégg waykat bi naan sërif la ibnu sërifun moom sërif di doomi sërif wax ci moom wax ju wax wax ju rëy waaye dégg nga Cheikh Ibrahima Diop almasar lam ci teg naka laxat nasata min shamsin wa min xamarin fa sirta bahran min al anwaari tasdaxiru خم صادو كونتي كوا نك يمن الخديم الذي يدعى بفضلنا ما نال فضل لا أنسى ولا ذكر يوم ميغا خم يوم نيجي ويدوم يسيق الخديم يوم داي سين غنيل ما نام جيجر منوكو أم غور منوكو أم نه يوم داي لخات نشطة دعاه سوسو من سامسون تيجنت ميسين توبا ومن خمين الأكتيير ميسون أو بوزو فسير تنو موجو بحران ديجي من الأنوار ديجي تلير غو خم تصدقرو كون لولو كيال دفل كون نكسير مو مدل فضل بكون تلقي يال دفل تيم قسنا Euh, ni mu jubóog boroomam mu wax na ne loolu ngën na la loo xam ne loo ko yàlla jox nga xam ne dafa wax ne moom nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal day sëñ Touba nga xam ne dégg nga mu ne sëñ Touba boppam nga xam ne sëñ Touba sëñ Fallou moo nekk loolu nee na sëñ Touba ci boppam daa yenu ndabam jëm ci boroomam nee na man Mouhamadou Fadal ma yenu sama ndab ñu jëm suñu borom bañ àggee suñu borom duyal ko ba mu feesal del duyal ma ba mu fees del ñu ànd maag moom wëññeeku sëñ Touba jël ndabam séddale ko sédd ma ci ma jël lam ma seet boole kook sama ndab moo tax ma mel ni kenn melut waaye dégg nga li mu wax Cheikh Mamadou Bassir Mbacke Cheikh Mamadou Bassir laaj na ko nee ko li ma jaaxal mooy fu jamono jaxasoo fu jamono tiitee seen xel dem nit ñi seen xel dem ci yow ku sa bët xonq xelam dem ci yow lu jafe-jafe amee xel yi dem ci Cheikh Mamadou Fadal loolu la ko may mu ne ko loolu day al isra wal mi'raj rek ca la ma ko yàlla defalee kon nag gis nga Cheikh Mamadou Fadal waaye Cheikh Mamadou Fadal bëri luñ mën a jàngat ci moom nañ xool Fadal ni mu nekkee nitu jàmm rawat nag nag ci jamono jii nga xam ne gis nañ menaces yi nga xam ne mooy am gis nañ menaces nucléaires yi nga xam ne mooy am gis nga gis nañ digg nañ Corée du Nord ak diggante États-Unis nga xam ne lu doy waar la ay menaces yoo xam ne troisième guerre mondiale mën na cee sosoo rawat nag ci jamono boo xam ne li ñu tuddee ay bomb atomiques yëpp am na waaye nag ren waa Touba xalaat temu jàmm maanaam Cheikh Mamadou Fadal rajulu salaamin wa tasaamu mooy nitu jàmm nga xam ne kon Euh, loola dafa mel ni kon ñi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal ay wii nga xam ne moo moom la ñuy ragal na dana am yàlla na ko fànq ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke Cheikh Mamadou Fadal nag léegi wane moom nitu jàmm la mooy dèjà rek loolu ay junj da cay fir da koy firndeel mooy mu juddoo Daaru Salaam Daaru Salaam gi nga xam ne Sëñ Tuubaa moo ko sos tuddee ko kërug jàmm kenn ku ne xam ne asalaam mooy jàmm te suñ borom dafa bokk ci turam yi asalaam waaye bi mu bokk ci turam yi asalaam tim l'islam di di firi jàmm al islam mooy firi jàmm waye gis nga sax ci nuyo ci l'islam assalamu alaykum la wax kon loolu day wone ne l'islam mom diine jàmm la waye Cheikh Mamadou Fadal gane daru salam gi nga xamné seigne touba moko sos daru salam gog nga xamné ne naari gànnaar yu bari ñing koy melal bo démé ci ku ñuy naar bi ñu tuddee Abdallah daf ne daf ne Abdallah daf ne ala mil ila daru salam wa touba isa qifti min raybi zamani khutuba nee na daal yow daal li ma lay diggal yow mi nga xam ne jamono dafa jaxasoo nga am tiitaange jaaxle te boobu sëñ Touba mi ngi daaru salaam moom la rek booy bara nga orienté dem ci sëriñ tubaa nga xam ne boo jàkkaarloo xaw sa zaman boobu rek say mbir xam suñu borom lijjantiku nga nekk sa jàmm waaye dégg nga euh, zunnooni di borom di beneen borom xam-xam boo xam ne daf na yaaraa iman naylu maaxat naalu fi atun kaanu lisa diin aqtaaban wa abdaalan fasil sabini ila daari salaam warit nee na daal bu fekkee dangaa ngaa bëgg yow da ngay sàkku li nga xam ne góor yàlla yi nekk ci li lislaam amoon nañ ko moo xam lu ñu tuddee alxutbaaniyatul usma moo xam li ñuy tuddee maanaam darajatul abdal yi soo ko bëggee daal booy bara nga orienté yu jëm daaru salaam rooti ci ki nga xam ne mooy mooy mooy borom jamono muy sëñ sëñ tubaa su ko defee nag kon loolu day firndeel na moom loolu lépp ci daaru salaam googu mu ganee jamono waaye tim ci jamono yi nga xam ne ci la ci la ci la ci la nekk di sëriñ tubaa toog ci jal bi ci jamono yooyu itam la fekk xam nga muy nekk muy nekk fekk booba ñu ngi nekkoon ci guerre muy 39 45 ci 45 boobu bi Cheikh Mamadou Fadal accès ci jal rek la yàlla dogal guerre boobu jeex nga xam ne kon loolu lépp day firndeel na jàmm ji yàlla def ci moom waaye itam mu taalif dëkk bu mu mu sos dëkk boo xam ne madinatu salaam la ko tuddee wala tacala daari madinatu salaam madinatu salaam dégg nga nga xam ne nga xam ne loolu day day day day day day day day firndeel nag loolu lépp day firndeel jàmm ji nekk ci moom waaye Cheikh Mamadou kenn mënu koo waxtaanee te doo waxtaanee aussi ak taalibe gi nga xam ne moo nekk ci moom nga xam ne loolu daf ñu koy jàngal nga xam ne ak taalibe dafa am njëriñ ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne lépp lu waaye jëlee ci man lu dul ak taalibe daanaka jëlee woo fa dara nga xam ne kon loolu te Cheikh Mamadou Fadel da daan wax ne moom bokk na ci rek ne xam nga bim ne bioxtu bu nuwootee bil iraada la li koy osaa bi xarxil aada jaay googu mu jaay njuróom waaye nag da koo appliqué à 100 pour cent ndax moom da daan wax ne aka ju ne aka ju ne aka dib moo ci gën. ak a bëri alal baax na de ak a bëri xam-xam baax na de waaye ak a dib taalibi nee na moo ci gën ak dib taalibi loolu am njàngat la waaye am na benn bis sax euh, ci njaareem sëñ Tuubaa euh, woolu woolu sëñ Malick Ndiaye naka woolal wool ma wool ma bokk taalibi yëpp ñëpp teew ñu sant Mbàkke taalibi yëpp daje mu ne Mbàkke Mbàkke yi niñ ko faree nii Mbàkke Mbàkke yi faree noonu mu ne mu ne mu ne taalibi yi niñ ko faree nii ñëpp taalibi ne yéen taalibi yi ni ngeen ma mooy ci Mbàkke Mbàkke yi ndax ñoom amul lu man waaye yéen mbàkki mbàkki yi na ngeen ma moy ci taalibe yi ndax man awma lu dul ñoom loolu mi ngi ko waxee rek sëñ Fallu na ñokket ànd ak sëñ Mundu mi ñoom doom toog ca taalibe yi ndax sëñ Tuubaa daf ne awma lu dul ñoom nga xam ne moom dafa kon loolu day firndeel njaay gi mu jaayee njureel moom daan wax ne man du ma doom joo xam ne du ma doom joo xam ne daa daa bëgg doon bàyyam waaye du ma taalib boo xam ne daa bëgg seex loolu day firndeel taalib gi mu nekk te kenn ku ne xam ne ak taalibe njariñ li ci nekk seex sëñ Seex Fall Baye Góor daan wax ne nee na ak taalibi mooy firi alxuraan ak taalibi mooy firi alxuraan nga xam ne melokaan bi nga xam ne moom lay taalibi bi mel boo demee ci alxuraan da ngay fekk day jikkoo jikko yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan nee na ak taalibi mooy firi alxuraan waaye kenn ku ne xam ne ak taalibi mooy lépp bokk yi parce que bu ñu xoolee kenn ku ne xam ne sëñ Mor Talla Fall sëñ Touba fekk na ko muy jàng xasidik midaad yi sëñ Touba nag ana ko kan la mënoo mënoo ko mënoo ko man la sëñ Touba nag man la day day yokk laaj rek sëñ Touba bi mu génn mën ko mën a Mor Talla Fall sëñ Touba nag Mor Talla sa borom nee na nga wax loo bëgg ñu defal la ko سيني مرتال نك في خال سنتو بانك سنتو بانك عاونك نيل أكتاليبي نيل أكتاليبي كون خامع جيسين كوكولول دايو فيرلنا أكتاليبي ما مسلو تبوا ميجي جانغ خزيد كون دنجي دي جندك دي توك دي جانغ خزيد بانغ يدروس القرآن بانغ بري خامع تيكول ندعام أكتاليبي كون نقول لب دي لين لين جمان خاملا واي جيسين كيانو كون خامع صارنا ماي كبرى كيرك بيجا خامينه مكلنا القرآن bi mu ñëwee sëñ Tuubaa def na ko demal ci demal ci demal ci demal ci demal ci demal ci euh, euh, soxna soxna soxna soxna hmm, soxna Fatija demal ci soxna Fatija mu jàngal ak taali bi ndax ak taali bi mooy loo xam ne bu ëllëgee yomal xiyam lenn lu nekk mën naa manqué ñu mottali ko ba mu ak taali bi kon nag demal mu jàngal ak taali loolu day firndeel maanaam am solo gi nga xam ne am solo ak taali bi am na ko kon nag kon nag loolu dañ ko jàng ci Cheikh Mamadou Fadal waaye mën nañoo jàngaat ci ci xër gi nga xam ne ci la xëroon liggéey ak sëñ Touba wax naa la léegi na la jamono yi nekk mi ngi daan laaj sëñ Touba na pour mu liggéey loo ko ba yàlla dogal bés sëñ Touba na ko nag liggéey jumaa ji waaye gis nga liggéey jumaa ji lam ca def mooy xeer yu njëkk Cheikh Mamadou Fadal moo ko moo ko teg moo moo ko indi waaye xeer yu mujj moo ko indi waaye kenn ku ne xam ne lim bindal sëñ Touba ci alxuraan lim bindal ci ñeent fukki kaamil yoo xam ne bindal nag sëñ Touba waaye lu mu daan mos a lu mu daan mos a bay lépp da ko daan def addee sëñ Touba da ko daan def addee sëñ Touba waaw loolu day loolu day firnde rek ni ci xër gi xam ne xëroon na ko ci liggéey Sëñ Tuubaa te liggéey Sëñ Tuubaa li ci nekk si njëriñ kenn mënu koo tënk ndax alhaaji Ibrahima al Baghdadi di naaru gànnaar boo xam ne ku bari xam-xam na dafa wax ne dafa wax ne mata naqat ila ixdaamihi xadaman takun dawaaman kaman sala wa madaka nee na saa yooyu yëkkatee sa tànk jëm ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa nee na yaa ngi mel koo xam ne danga sax ci julli te julli gi mu nekk julli gu nangu kon loolu day wane màggaayu liggéeyal sëñ tubaa ni mu mel te Cheikh Mamadou Fadel bokk na ci li nga xam ne moom la jàngee ci moom bëgg liggéeyal sëñ tubaa waaye kon gis nga loolu nu mu amee solo waaye dégg nga sëñ tubaa sax lam ci teg bi nga xamee ne mag ñi ñu ngi koy liggéeyal ñu bëri di wax ne maanaam nit daal naka lay mën a liggéeye naka lay mën a liggéeye ab jaam ni moom sëñ tubaa dafa jël am ne inna allazina saaro li xidmati fa lahum diyaaru wasatal jannati ñi nga xam ne dañuy njëkkantoo jëm ci diima liggéeyal faloom ñeel leen ak diyaaru ay kër wasatal jann ci digg aljanna ji kon nag loolu day fen te digg aljanna yooyu sëñ Tuubaa firi ko ndax moog euh, euh, kenn seex ki nga ne moo sant Seck nga xam ne moom la mujj moom la mujj moom la mujj waxal hmm, maa ngi jégalu baax dañuy fàtte tur wi sëñ Rijaal Seck waaw alhamdulilah sëñ Rijaal Seck sëñ Tuubaa bi mu koy wax ne ko bi koy wax ne ko ba koy wax ba mu koy wax ne kër yooyu jannatul firdawsi nga xam ne waxtaan moom waxtaan moom yàgg na lool waaye da ko jaa tegal na ko daal ahmadi mi ak ku ko yaakaar ñu nga dëkk jannatul firdawsi jannatul firdawsi jooju nag nga xam ne moom lay borom bi tabaraka wa taala di wax ne inna lazina amanu wa amalu salat kaanat lahum jannatu firdawsi nuzulan xaalidina fiha laa yabquuna anhaa wala mooy aljanna joo xam ne boo ci xasee ba tabbi sa xel dootu daj dara kon loolu kon loolu lépp mooy jàngee nañ ci jàngee nañ ci Cheikh Mamadou Fadal ci liggéeyal Sëñ Touba su ko defee ne gis nañ ne ci biir Touba lim fi réalisé mooy wax nañ ne jumaa ji ci loxoom la mu àggee waaye moo loti sa Touba waaye moo fexe ba wooteeg màggal la Touba indi ko ci Touba nga xam ne tey xalaatal day fi yoon wi toolu tey su fekkoon ne tey dañoo bàyyi kenn ku ne di màggalee fu la neex tey amaana yoon wi dana dana am ay jafe-jafe yoo xam ne kenn du ko mën a mesurer waaye mu xalaat ñëpp nañ nañ dajee Touba te dégg la mu wax rek mooy bëgg ñëpp jëriñ rek moo tax mu def ko loole moo ko defal sëñ Touba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne liggéeyal na ko sëñ Touba kon ba pare dajale njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp waaye bokk na ci liñ mën a jàngee ci moom mooy Cheikh Mamadou Fadal nag yërmande ji nekkoon ci moom yërmande ji li kenn mënut tënk xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam li suñu borom wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jooju loolee dafa feeñ ci Cheikh Mamadou Fadal na ci waajurum Cheikhul Khadim alayhi ridwaanullaahi baaxil Khadim yërmande jooju ndax Sëriñ Tuubaa kenn kon xam ne diggante mook tubaab yi la ca jaar waaye dégg nga fa mujj ak ñoom afawtu anil aadaa turran li wacci man

seex Mamadou Fadal kenn ku ne na kaamilam boobu dox moo digganteeg Cheikhul Khadim mu ko bindee ba àggeel ñëw wax nga xam ne bi mu bindee kaamil bi ñëw nga xam dafa njëkk bind kaamil jox ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ sa borom nee na fàllu na nga bindal kaamil mu dem bind kaamil bu rafet ñëw jox ko Sëriñ Tuubaa sëñ bi yër kaamil nag ah kaamil bi da rafet na lool mu ne ko waaye day nekk dama koy jaay de te moom day xam naa mooy borom alxuraan te xam naa njëg duñu boole mu ne ko sëñ sëñ Tuubaa ne tekk bu yàgg ko fàllu sa borom nee ne loo koy jaay kaamil bi mu ne ko ah kaamil bi mooy yow mi ku la bëgg na yaramam araamal sawara sëñ Tuubaa ne ko ah fàllu sa njëg gi day seet na sëñ sëñ fàllu de mooy amut ba mooy amut ba sëñ Tuubaa jékkam yàgg ko fàllu sa borom nee ne nangul na la ko te la sëñ Tuubaa jëlee xale mi ne wajhu lazi yuhibuni yabyadu yawmu wujuhi sura tabyadu xar xanam yi nga xam ne dañ ma sopp man sëñ Tuubaa bu bis péncee bi nga xam ne suñ borom day tereel ñi nga xam ne dañoo ay soxodaa lañ ay martir lañ ci lislaam lañ dee nga xam ne yàlla day wax ne wala tahsabanna lazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim sëñ Tuubaa ne su boobaa ñooñu ni leen suñ borom di xéewale ba nga xam ne seen kanam yi day leer nañ nga xam ne ku leen gis xam ne ñuy texe la sëñ Tuubaa ne ku mu sopp bu bis pénc jotee noonu la sa xeram noonu la sa xar kanam di mel te loolu Cheikh Mamadou Fadal moo ñu ko fàggul kon loolu ci yërmande ñu waaye gis nga bokk na ci yërmande gis nga euh, sëñ Mor Mbaye Cissé bi nga xamee ne sëñ Mor Mbaye ci boppam bi nga xamee ne yàlla dogal na mu xam ne sëñ sëñ Fallou mooy borom jamono daa ñëw na ko damaa bëgg juróomi sarri yi nekk ci xulonsi bi rabbil bi rabbin naas nga jaay ma ko nga xam ne sëñ Tuubaa moom lay tënk ci xasiri sindi di wa kun mu'isan lana min sharri asidin jooju ne ko nga jaay ma ko sëñ na ko jaay naa la ko waaye koo ko jox muy muy muy muy muy maanaam muy assurance am nga xam ne wax nañu sëñ Mor Mbaye si ku daan mos a ñëw ci moom daan daan la assurance nga bëgg boo ñëwee mu jox la ko bu la ko joxee maanaam yàlla dana la musal ci accident yi te yaakaar naa Sénégal ci jamono yi nga xam accident yi sonal nañu lool mel ni ne lu mel noonu tey soxla dañ ko kon loolu ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal ci la amoon waaye Cheikh Mamadou Fadal maanaam ni nga xamee ne la nekkoon ku mën muñ waaye ni nga xamee la dudd àddina foofu nag la gën a ndax Cheikh Mamadou Fadal kenn ku ne xam ne lu nekk daj na lu nekk daj na ci ay jafe-jafe ci coono ba nga xam ne bind na sëñ tubaa sax ay lettre waaye nag bis sëñ tubaa tontu ko naka nag wax ko wax ko wax ko ci gën xasidi koo xam ne bi ka alyawma akmaltu nga xam ne nag nga ci jaayante ka sëñ tubaa def na ko woon fala taalumu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ahyunin jazaan bimaa kaanuu ya'maluun ndeke bi ka alyawma akmaltu jooju sëñ tubaa junj ko ndeke sëñ tubaa da ko doon junj xamal ko ne ko jumaa ji ci yow lay mate sa loxo te loolu yàlla dogal na ko kon nag Cheikh Mamadou Fadal ku bëri ay ngëneel la waaye ci la ci wax la rek ni mu tudd woon àddina durant li mu nekk ci xalifa gi yëpp ba ni mu xëyee dem aljanna ci kër gi mu dëkkoon maanaam baraag la woon nga xam ne eh, sëñ Mamoun sëñ Mamoun Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal nettali na ma nee na nee na nee na am na benn bis ñu xalaat daal baraag bi ni mu ci suuf si maanaam max yi max gi mën na koo lekk xam ne kenn ku xam ne max ak ak ak dénk waaye mu ne ñi bàyyi ba mu génn ñi daal di ñëw gaaw yëkkati baraag bi daal di peron foofu daal di jël baraag bi teg samp ci koom waaye bi mu ñëwee bi mu ñëwee bi mu gisee rek daf na daf na dindi leen ko ba mu set dañ ma koo tere woon. dañ ma koo tere nga xam ne booba loo waral loolu mooy dafa am benn bis mu ñëw fekk sëñ Tuubaa njaareem fekk dafa dajaloon li nga xam ne at moom moom la bay gannaaw bi mu jaayee lépp xaalis bi mu yoroon ak addi yi ko joxoon ñëpp mu jëndoon matériel xalaatoon na ñëw wax ko gi ci njaareem نقدر إذا ما بقول يصل برب برك سنتو بقى نقدر فلو ريخ طبخ كجوف الله أكبر بوا منك لبايته خال فوفو ريخ خم نيوم ما نم لين تدو أزود تتصوف ما نم تدو أدنى لولا لك سنتو بقى دون جانجل نخم نسوفيان كي بري لولا دانة دفع مك ملو سوفيان كي واي خال بوا خال أبو أوري ترى دي الله عنه بمية طبخ كرم دي طبخ بمية عقل اقتربت للناس إساب وات وهم في غفلة الموردون قام نسوني برم دايوخنا دي بسبينت دي جيغنا تنيني نيجي سحتيك ساقن واي أبو أوريدة بيم ديجلو رك دانيون برم واي جي تابخ نكو أريد التابخ بي أريد التابخ بي تابخ بمجر كن كوي أغلي تخوالا بوباك ليجي بليك أدن سانف واي كنو كنا خمني سيخ سيداج مالك مباخمه am na benn bis boo demee ci xasida gi mu gi mu gi mu tënkee gi mu tënkee sajrul xulóob mooy mooy mooy jànq xol yi jàjj xol yi ci xasida googu da cee wax da cee wax lu doy waar da cee wax ne ayyuhal mabani mahalla diyaafatan alam taalam anal jalaa ak xarib benn taalim bu ñuy wax sëriñ Maxtar Silla ñëw di tabax ci kër Seex Seydi Ajji Maalik di ko tabaxal nekk ca koom nag di jàng xasida gi ba agsi ci أيها المباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب Cheikh maanaam Cheikh Seydi Hadji Malick dégg wax ju mu wax Cheikh Seydi Hadji Malick na ko wàccal te yemale foofu tabax bi gis nga kon maanaam nitu yàlla yi nañu ragale yàlla Cheikh Mamadou Fadal nag gis nga bi mu ñëwee fekk nag kii bi daf na nañ ko dindi ba mu set ndax lii dañ ma koo tere ñu ne ko waaye déet max gi day lekk dénk mu ne waaye max gi max yi ay jaam yàlla lañ te dañoo war a dund bu leen leen xaj seen ab dund kon kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal kon nag su ko defee Cheikh Mamadou Fadal ci wàllu ci wàllu tabeem loolu ku lu ci yéeme la woon ndax koo xam ne da ngay sëriñ tubaa ba àggeel ku ku nekk mën laa nax ta seen seen seen moom dafa yàlla da ko may ba di xool li ngay wax lépp da koy xam même boo koy nax xam na danga koy nax waaye nag la waajo waxoon du xoot saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku ko mu jox la ba nga giijal ndax moom xam nga loolu loolu loolu tabe mënu ko weesu moo tax nit ki ñi façon bu nekk daanañ ci jaar di ko di ko di ko di ko di ko nax waaye ànd ak loolu da koy xam waaye téewul day day day day day da leen di baaxee li nga xam ne moom la leen di baaxee waaye am na benn xis rek bu reelu boo xam ne daa am benn waay bu ñëw na ko sëñ bi dama bëggoon mbaam mu daal di yebal kenn ci fare yi na ko demal nga nga yeewi mbaam mi jox ko fare yi xam fare boobu xam ne mbaam mbaam mii de amal na kër gi njëriñ mu daa di mu daal di mu daal di bañ jox waa ji mbaam mi xam nga diggante ay taalib rek ni mel ñëw na sëñ bi mbaam mi de gisuma ko sëñ Fall na kon yeewil fas yi jox ko mu ne ah man day def naa lu ëpp man ma doon bañ a joxe mbaam far ñu ne fas wi mu mu dem mu del si ñëw ne waa sëñ bi far far naa gis mbaam ma si moom dafa faral naka boolal fas mbaam mi jox ko waa ji far <laughs> waa ji def naa lu ëpp far kon loolu lépp day woon ne moom Mamadou Fadel ni mu tabe woon kon nag yàlla ñu ko yàlla fayal kon xam naa ñu ngi sant waa rajo Xasaay tubaa Mende bi di sant wax dëgg yàlla sëñ Modou Mbaye Thiam ak ñoom Alioune ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo yor euh, télévision bi ak rajo bi di ci liggéeyal sëñ Touba ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàggal seen taxaw ci barke bis yàlla na yàlla maanaam rajo Xasaay online dem ba nga xam ne di nekk ay télévision yi télévision ci barke Sëñ Tuubaa ndax moom euh, rajo la boo xam ne liggéey lislaam rek ak liggéeyal Sëñ Tuubaa te buñ ne liggéeyal Sëñ Tuubaa mooy liggéeyal lislaam ndax Sëñ Tuubaa moom lislaam rek moo ko tax a ñor lislaam ko taxoon a jóg léppum lislaam la woon moo taxoon mu jot ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jot ndigalal boromam na yonent ci amari nii rabbi bi an u sarya bi ani nii malasun wa iman kon nag yàlla ñu defal tawfiq kon ñu ngi yemal foofu wa ma zalika allah bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu